بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم ماغي نك يكتي سما كادو دي زياره دي ماغال تاي جيغلو نك شيخ محمود المنتخب waaye di jégalu murid yëpp di jégalu jullit yëpp da doomu aadama mën naa jubloo wax lu baax seytaane këf ko mu wax loo xam ne bokkut ak la mu war a wax waaye doomu aadama rekk la ak jaam rekk la di jaam bu xeebu nag bu ñàkk solo di jaam bu xe gën a xeebu ci jaam yi kon sëriñ bi maa ngi jégalu bu baax di jégalu jullit yépp di jégalu taalibe yi ñun de ku nu xam. mbaa nga déggunu xam ne lislaam rek moo nu ñor xam ne ak taalibe rek moo nu ñor xamuñu lu dul ak taalibe sunu waajur ci loolu la ñu yar nampatal ñu ci jëmm ji nga xamante nii moo fi nekk yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér di Cheikh mu Mountakha kenn ku ci nekk xam na ni mu toppee woon sunu waajur kenn ku ci nekk xam na ni mu laxasaayu woon ci kanam sunu waajur bu tedd waxuma la sax ay waajuram waaye sunu waajur bii nga xamante ne rek barki démb la fi jóge kon ñun mënunoo def lu dul topp ko mënunoo def lu dul amul taalibe mënunoo def lu dul di sax ci ndigal lépp lu dul ak taalibe amuñu ci soxla lépp lu dëppoo ak lu mu rëy rëy amuñu soxla kon ñun ak taalibe rek moo nu ñor lislaam rek moo nu ñor kon maa ngi wëlbatikuwaat di tuub tuub bu sell di ñaan bu jullit yépp jéggal ma rawatina taalibe yi waaye rawatina sama yaakaar teeg ëllëg di sunu yaakaar شيخ محمود المنتخب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته